may li ci yéene kaay yi. yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gëstu bi waa ANSD def ba xayma ci ni askanu Sénégal toll moom la l'observateur xëy tooge yéene bi agence statistique démographique ci seen recensement général bi nee nañu dix-huit millions trente-deux mille quatre cent soixante-treize habitants ñoo yeewoo ci Sénégal xaaj ba mu di cinquante yëpp ay jeunes lu ñu toll ci fukki at ak juróom-ñeent moo waral yéene kay bi di l'observateur def ab taxaw seetlu ci réew moo xam ne population jeunes yi ñoo ëpp ndax loole lu baax la ci réew mi am boroomi xam-xam yu ci mel ne docteur Momar Diong enseignant chercheur en géographie humaine professeur Aboukan dip agrégé ci wàllu économie ak Magay Gay dip économiste international docteur Diong nee na leen réew mi bari ay jeunes dëgg la lu baax lay doon ci ëllëgu réew mi waaye ab yan lay doon it ci seeni famille ak ci état bi état bi njiitam di Macky président national moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national moom ak général Moussa Fall mi jiite gendarmerie bi nañu ci ndaje mi woon démb jëmoon ci daloo siège bu état la xam ne na fa yéene ju mu ñu yokk li mu gendarme yi nee bëgg-bëgg mooy fii ak ñu recruter lu toll ci agents anki dina kay mel ñu gendarmerie nationale duy caaxaan monté en puissance le journal bi bind ci xëtamu njëkk dolli ci dañu xibaar ne gendarmerie am na juróom-ñeenti légion juróom benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juróom ak ñaari téeméeri brigade yu manki juróom 195 te njiit réew mi Macky wax na démb ne fii ak 2025 danañu fanweeri junniy gendarme ak juróom réew mi quotidien nañu illicite cybercriminalité ak anam bu ñaaw yi ñuy nemmeeku ci réseaux sociaux yi Les Échos nañu ba ñuy inauguré démb siège bu état-major au commandement de la gendarmerie nationale président Macky waxal na fa général Moussa ay baax-baaxam nee na ko mission bi ñu la dénk yaa koy doxal ci rigueur yaa koy doxal ak loyauté yaa ngi koy doxal ak professionnalisme xam nga li la war te sax nga ca maanaam sens du devoir la si ne kay jàpp ne président Macky Sall seen bi ñu yónni waatoon démb ca direction générale des élections ngir mu jëli fiche de parrainage Ousmane Sonko di Ayib Daffé demaat na démb waaye kenn joxu ko fiche de parrainage loxoy kese la fa dugge loxoy kese la fa génne sursoo ko moo tax bu mu génnee yàq na leen xeme Sud Quotidien bind na direction générale des élections acte de njaaxaanaayam xel na ci ndax justice bi jël na dogal DGE lànk ne du ko def mu Ndiaye d ci xët mu yéenekaay li ñuy gis ni bu dakul dinañu gis ci réew mi ay contestation laata élection yi gis ko ci élection yi gis ko fiit après élection yi ci xët mu njëkk Walf Quotidien Ayib Daffé ak i kàddoom mu fay wax ne li ñu gis ci doxalinu direction générale des élections du lenn lu dul jëfi wuyu ak banditisme administratif Le Témoin ak journal L'Info xëy di ñu xibaar ne avocat yu Ousmane yi am na beneen recours bu ñu yóotaat waa Sénat commission électorale bi le jour nee nañu luusa nga ca yëral xët mu njëkk yéenekaay bi am na ñuy dem ci nit ñi di jënd seen identité ci ab reportage bu mu def ca banlieue bu Ndakaaroo fa la gisee nit ñi ñi ngi jënd identité yi ci francs jàpp francs am ku wax ci yéenekaay bi ne jaay na 500 fiches ci 1 million ndax gaañi ay parrain la soxla moom nag parent la dafa yor kër am ay sars ñu desarcé ci politique bi jël sunu làmb wax ci làmb ji war a am dimanche ji ci diggante waa Pikine yónni yàkkamti ko mi ngi xaar koo xam ne Pikine gi yëpp a ngi ci ginnaawam firnde li libération nee nañu mooy ni maire bu jidda caare ko Mamadou Gueye doxalee ak moom Ama Baldé moom directeur général des domaines di Mamadou Gueye keroog bi Ama Baldé di def open press ci stade Alassane Djigo ma nga fa woon àndoon ak supporters yu bari demoon doon ko jàppale ak di ko dolli doole ba jox ko fob drapeau yamu ca ndax jàppale na ko ci wàllu ko